يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد الله سبحانه وتعالى في جنة أبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ñu ngi sant sunu borom li mu defaraat yow mi ngi ko mën a jëriñu subaar ci lañ ko baaru xam-xam sunu bind tey ñu war a nekk ab darsu ci waxtaanee saxaaba yi rek ñu soog a wax waa rek ñu ne ñu ngaa ko baax ñu ñu ñu wax ci sa yegg ànd ak fexe yi ñu mën a def ngir jéem a teel a yegg ngir def daal jàppale ñu maanaam loolu suñu borom la wax ngir bañ a neen a détail xam ngeen ne ci guddi yi ñu xool ñu bari ci jullit ñi ñu ngi wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ngeen ne wér la ci sunna ci weer wi mu nekk ci la yonent bi judd loolu mooy wér la sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak ñaar شهر ربيع الأول ويبان منه ربيع الأول ونبقى في الأرض ولو في نفس الوقت ده يبان وكعب ربيع الأول نقول كمان شوف ويبان ويبان اللي شغال في الجنة صلى الله عليه وسلم كم كده يبان في الجنة li ëpp ci jullit ñi ñi ngi wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu jiitu ay fan ñi ngi wax ci yonent bi ba tey ba suba ba ginnaaw suba ñi ngi wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci yonent bi léegi lu am solo kon jàng na jënd lu nit ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na xam guddi yi ñu toll est ce que dëgg-dëgg bu ñu doon am dara bu yor xeetu xaaral taxawal ko wax ak lépp di baratiku baratiku gaaw donte bu dee jiw mu nar a nekk lu jafe ñu tënk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg goo xam ni ci doon jéem a góorgóorlu nga xam ne li ko yitteel mooy xam lépp yonent bi ngir tënku ci kooku dana am ak car bu mu jàpp bu dëgër kon lu mën a tënk fàttali ci ماذا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم lan nga xam ci yonent bi am naa leen nii boo xam ne tey boo ko laajoon ati gëm yàlla ci mën naa am sax doo lu bari dëgg la xam na ci yonent bi lu bari waaye dafa mel ni boo xamee tontu laaj boobu la ko jëlee lu mu xam ci yonent bi te bu leen fàttali mbokk yi ñeneen ñi ne ci leneen sonn nañ ba seen ñooñee dañu leen di xam am na ay nit yoo xam ne taarix bind na seen dund ña topp seen ginnaaw dañ leen di nampatal bëgg yonent bi sallallahu alayhi bëgg seen gaa yooyu boo demee ci espoir bi boo demee ci làmb bi boo demee ci daa boo demee ci côté diine bi ñuy àggalee diine dootu sax na suuf taarix ñooñu dañ koy xam xataa gën a ndaw yi nga xam ne boo demee ci yeneen diine la ñu nekk dañu leen teel a nampatal yar leen ci bëgg ñooñu am na mbokk bu may nekk ni nii ak kuréel bi ci réew bi woote woo diine ñi gën a naqari génn ca lañ nekk ñoom ca lañ bokk bi ma ko laajoon sax mu ne ma gone si tuuti bu yàgg nàmp ñoom ci lañuy commencé dana nàmp tam liñ gëm ñoom wax nañ dëgg même lan nekk gul dëgg ñoom wax nañ dëgg ñoom ndax ñoom lañ nekk ñu ngi dig nañ koy dugg est ce que jotu tey ñun ñu nàmpatal suñuy gone balaa suñuy nàmpatal suñuy mag ci xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ko mooy mën a nekk sabab ci bëgg ko al insanu aduwwun bima jahil nit noonu la ci lu xam beneen bi laaj bi mooy hal qaddartum nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaqa qadri ndax alquran day wax wa ma qadaru llah xaqa qadri dëgg-dëgg yàlla gëdd bi mu am ñun joxuñu ko ko wallahi yàlla yàlla gëdd bi mu am ci ñun joxuñu ko mooy ñu defal ñuy lekk di ñu defal ñuy naan bind ñu def ñu ay nit di ñu wërsëgal limal limal limal limal boo ko aataakum min kulli ma saaltumuuhu ba wax ba in tauddu ni'matallahi la tuhsuha kon yàlla dama ñu ko dëgg waaye hal qaddartumu nabiya sallallahu alayhi wa sallam xaqa qadri ndax yonent bi tamit est ce dëgg bi mu am ci ñun jox nañ ko ko loolu lépp dafay dellu si waat ci hal alimtumu nabiya sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi kii woote woo bëgg yonent bi bay jëf ay jëf yu juuyoo yonent bi yëpp jàngale kii woote woo bëgg yonent bi ba bokk ci dëgg bu fakkasu kii woote woo yonent bi ba gëm ni moom amul ci àddina lu dul moo gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku damay wax buñ ko waxee saxaaba yi niñ meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day xam ne ñun ñu bëgg moo tax imam ju mag yoo xam ni su ma juum mi ngi dund ba léegi Cheikh Aboubacar Diakhaté dafa am diir bu am solo bu mu taalif su dee ko hakada al muhibbu ayyuha al habib hakada almuhibbu ayyuha alhabib ki bëgg dëgg dëgg nii lay mel yow ñu naan da ngaa bëgg yonent bi déglul mu ne ki bëgg nii lay mel nan muy joxal saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñooñu nga xam ne yàlla moo leen tànnal comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud qawmun di waxee qawmun ibtaahum allahu bi sohbati xam ngeen yàlla inna allaha tafa aadama wa nuuxan wa ala Ibrahima wa ala Imran Moussa ak Aïssa génne ci alal aalamiin kon kullu asnaf inna allaha tafa Adama wa Nuuhan ah wa ala Ibrahima wa ala Imran alal aalamiin Mouhamed dugg na Aïssa dugg na Moussa dugg na yàlla moo tànn Adama tànn Nuux tànn ala Ibrahim tànn ala Imran kon kullu asnaf boobu Nuux Muhammad Adam de Nuh Moussa Isa Ibrahim Muhammad Adam boobu ñoom ñooy ulul azmi yàlla subhanahu wa taala moo leen tànn ñoom bi bi leen suñu borom tànnee ba noppi borom bi tànnaat Ibrahima ci biir tànnaat wattaxada allahu Ibrahima xalila borom bi tànnaat biir njabootu Ibrahim génne ci Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam def ko safwatul xalqi ala al ard moo tax am na xadis boo xam ne yéen ci am day wax ni yàlla day dafa daf maa tànn ci nangam tànn ba sa xadis bu borom moo la jox dafa baax waaye maanaam moom loolu laa sukkan noonu mu ko waxee la amee ci Quraysh ci la ko yàlla génne mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamono bu gaaw boo xam ne yonent bi nekkoon na fi yonent bi néew fi adduna fees benn bopp yi adduna dëgg Moussa jóge na fi taxrif nañ téeréem diine ji daanaka li jëpp ay caaxaan la Isa jóge na fi taxrif nañ téeréem li jëpp ay caaxaan la kon comment baalu ko ci ñu leen jiitu woon borom bi xool addina comme ni ko yéen ci waxee xarit boo xam mi ngi ci Sahih Muslim yàlla xool waa kaw suuf waa kaw suuf nekk ci mbonte ak lëndëmte ak cànkute yàlla jëppi leen arabahum wa ajamahum sunu borom subhanahu wa taala xam ni ñii gët bu leen bàyyee ñu àll ko sunu borom bëgg leen a xeet ci leen tànn Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk lu ko jiitu mbokk yi kenn ku ci nekk bal ak moom dañuy wax ni ay téeméeri téeméeri nit yu ñu xam ni tudd Muhammad lu tax ndax muxaabakat yeeg jabarkat yeeg ñu ñu borom xam-xam ya xamoon nañ ni ci at yooyu ci la ci yàlla lay yónni di mujjee ñëw parce que téere yu njëkk yëpp waxoon nañ ko da ngay ko am doom tuddee ko Muhammad ngir lan bëgg mu nekk Muhammad waaye dañoo dañoo fàttali wallahu a'lam haythu yaj'alu risalata mbir mi kenn du def nii ngir yàlla ñëw def woon yàlla day ñëw fekk nga def nee fekk mu tombé woon ak nan la def nga am sax wallahu a'lam haythu yaj'alu risalata هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين هذه من شعب lii moo tax mboolem ñun arab dañu añaane woon arab yu mel noonu yéen ñi jàng siira xam ngeen bi yéen yàlla bi tollee nekk waxambaane ba xayraa ba jeeg ndajaay yonent bi ni ko koo jël mu ne ko xamal ni jamono jii rome yi ñi ngi yabal ci ak kon addina bi ay nit ngir nañu ko fan la Muhammad bi génn na xam ne ni jug na ñu rey ko ay kéemaan feeñ ci juddu yonent bi taxumaa jóg ndax waru kéemaan fi mu ne ñeneen ñaa ngi koy def te du loolu la soxla yeneen si baa dox la mbëtt ma moo wax loo garab nga soxla nañ ko waaye fan koy soxlaa mooy bu ñu tegee suñ tànk ci kaw suñ la ko noppi jamono bi ñu toll da ngay dégg ñuy wax ni guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ndax tuutal yonent bi mën ta paase nga am atum nëmb trois cent soixante un jours trois cent soixante cinq jours ngay xëy di lekk di naan ngay di lekk di naan nekk ci say activité ba fukki fan ak ñaar nga ne dama koy jagleel yonent bi wallahi da ngaa tuutal yonent bi sallallahu parce que dañuy am lépp jox ko ko ñala neex nga bàyyi benn fan kon maa qaddarta nabiya sallallahu alayhi wa sallam xaq xam dafa am loo xam ne gis nga moo tax gis nga xel yàlla dafa jox nit ku muy xalaat dafa loo xam da ngay tuutal yonent bi doo ko yëg trois cent soixante cinq jours ma nekk ci yi ma neex ba benn fan may damay koy dundalee yonent bi wala mbokk yi même bu fekkoon ci dama koy dundal yonent bi ci wax siiraam jàngale na doon sangoo jàngale na wax nit ñi diina ju leer sax tane nga waaye déedéet yonent bi gënoon a bañ góor ak jigéen di jaxasoo ba bëgg di jox moom te loolu da cay am yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom gën a bañ góor ak jigéen di joxante loxo te da cay am yonent bi gën a bañ jigéen tukki ànd la maxram te da cay am wallahi la gën a bon sax nga xam ni tey ñi nga nit ñi sax dañ koy yàq muy jaaral sax da cay am déglu leen média yi yi ma waxuma ay léeb nekkuma Gambie di nekk nekk Sénégal da ngay gis ku def am yàlla mu pause mu ne ah ba ca kanam tuuti gis ni mbir yooyu ay mbir la yoo xam ne lu xam nañ parce que ci réew mi la dëkk am na yuy xew or naa naan jàkka ji nii su ko fa tudd kon mbokk yi ndax dëgg dëgg dëgg yonent bi jox nañu gëddal sallallahu alayhi wa sallam déedéet kon tey yàlla ku yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdoulaye di wax ni man kaana mustannan falyastanna bi man qad maat ku yut koo roy ku yut koo toppandoo xoolal ña faatu ni saxaaba ya ñu ni ko lu tax mu ni fa inna alxayya la yubanu alayhi fitna kii dund fitna mën na koo dal wallahi laqad sadaqta ya ibna mas'ud ak rasulullah ni tey baax di baax di baax ba nga jàpp ni kii de mu xëy rek waxtu ni doon boo xam ne dañ koy libee gis ngeen gis na mu ni ulaayka asxaabu muhammad ñooy ay saxaaba yonent ñoo gënoon a baax ay xol abarraha bi ngeen umma ñoo gënoon a baax ci xeet ñoo gënoon a set ay xol ñoo gënoon a gëm yàlla ñoo gënoon a ragal yàlla mu ne faqduhu lahu qadrahu kon ñii jox leen leen seen wàll jox leen leen seen gëdd allahu akbar boo xamee siira boo xamee siira xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ñan ngay saxaaba ya wallaay su lay wax yenn ci ay nit yi ah dama gëdd wàcc dama gëdd wàcc lu tax aw nit yoo xam ni adduna bi yàlla daf leen a tànn yonent yàlla da ngay wet yéen safar xëyru naas yonent yàlla wet ñi gën ci adduna bi xëyru naas ñi gën ci maas yi xarni mooy maas yi ànd moom di saxaaba yi summa alladina yalunahum di taabi'uuna summa alladina yalunahum di taabi'uuna taabi'uuna ñi ñooy gën ci xeet ki nga tànn ba jàpp ne kii moom gën a ragal yàlla ci nit ñi kooku dama ne buñ ko waxoon demal toog te mbooloon saxaaba bu demee toog du sikki du sikki day rus xoolal taabi'uuna xoolal saxaaba yi ñu bëgg yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn benn benn benn taabi ay dafa wax Xusayfa ibn Yamaan yi ni ko yow fekkee nga dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko waaw mu ni ko yéen bu ngeen ko daan ànd ak yonent bi dem nu ngeen def mu ni ko dañ koy bàyyi mu dox mu ni ko wallahi bu ñu ko fekkee woon ñun duñu bàyyi tànkam dañ koy yéen fu mu jëm dañ koy yéen fu mu jëm mbokk yi baa xam nga ne saxaaba yi yonent bi bëgg yonent bi tuur na seeni rafet bataay وأوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر أي لم تدور متى من يمن أكتفع البدي النبي صلى الله عليه وسلم نخبر رسول من بدي النبي نخبرني ما بين ما جبل هكذا المحب أيها الحبيب يبقى نيل النبي مو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم mu ne anduru ila nabi anduru ila alqamar anduru ila nabi anduru ila alqamar mu ne maa ngi xool weer wi di xool jant bi te wallaahi farfarloo taxul may wax dama doon wax ni weer wi toll ci fukki fan ak ñett ni mu royee ak ni mu rafetee moom xam-xam yeneen ci sàmm la ba mu ci gën a mu ne moo tax bu ma xoolee fii la xoolal te farfarloo taxul ñuy wax gars yi yii la meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa neexoon a bëgg sallallahu alayhi wa sallam melokaan la ko yàlla joxoon boo xam ni xam nga damay wax mbokk yi léeg-léeg boo nee Youssouf chafara chef d' accord Youssouf rafetoon Youssouf xam nga ne bu demee ba ay jigéen di miir ci moom bay lakkati seen bopp xam nga ne kon taar ba jéggi na dayoo léegi bu ñëwee taar da nga defee ne Youssouf la waaye baa xam nga ni Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla dénkul ci taar wallahi na saxaaba yi doon jig di jege ci tàppe bu njëkk ba te jubluwaay ba mooy bu yonent bi wëlbati ko dana may jàkkaarloo ko dafa àggoon ci xolu saxaaba yi koo xam ne même boo meroon boo jàkkaarloo moom sax da ngay kontaan karaw boo xam ni comme ni ko ahlu siyar di waxee karaw la boo xam ne guddi lool léeg-léeg mu bàyyi ko mu gudd ba daanu ca mbagg yam léeg-léeg mu bàyyi ko mu daanu ba ca digg gannaaw ka la mu ñett ko jéem ko bu defee màkk léeg-léeg mu wàññi ko waxal ne tigga uusakum wa qassarin sallallahu alayhi wa sallam ahdaba al aynayn foo ko xoolee guddeeg bëccëg dafay mel ne dafa dugg ngir dëkk bokk na ci maanaam ngay taa muy góor muy jigéen muy bët yu ne pàcc ubbeeku bët yu ubbeeku ñaari xaaj la bët ubbeeku ak bët bu ubbeeku génn bët bu ubbeeku génn mooy feebar waaye bët bu ubbeeku taar la moom la yàlla dajee waa des wax suurun ayn bët bu ne faar ubbeeku ba pare ñun kut boo xoolee la ni la dañ ko tus nga rek kenn tusul noonu la Muhammad bi la sallallahu alayhi wa sallam bët yi mën naa gëm nga da ngay ma ngay nelaw fekk nelawut moo tax yow yaay nelaw sa jàpp bu sat parce que boo nelawee manqué nga conscience kooku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dañuy wax dañoo dafa am benn sàkkara yàlla buy wax boo jàkkaarloo ak ñoom dafa mel ni jéem ak nuur yaxruju min bayni sanaayaahum dafa mel ni leer dafa mel ni boo dee ba yeewu tombee jamono yi seen waaw booy wax dañuy sànq bi ñuy génn moom la leer bi doon génnee ci diggante sàkkare yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam bëgg bi yeggoon koo xam ni jéggi na dayoo waxoon naa ne saxaaba boo nga xam ne daa gaaji woon jox ko ne ko demal nga tuural ko mu làqu ci ginnaaw ni ko tax ñëwaat joxaat yonent bu jël bi yonent bi gaaji waat joxaat ko yonent bi ku ku ku xamoon la mu xool waa ji xam ni kii ni ma ko tuurloo ak tawanteem jii tuur ko yonent bi laaj ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko ana li ma la jox mu ne ko sànq naa ko fee ci ginnaaw kenn sànq naa ko sànq na ko kay yéen bi ne ko waxuma loolu dama ni foo ko def mu ne ko sànq naa ko fee mu ne ko foo ko dugal laa wax mu ne ko dama ko naan yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow day yàlla dana xaraamal sawara koo xam ne sama deret bi na ko cax ci biir deret allahu akbar yéen bi daa yeewu sallallahu alayhi wa sallam fekk ummu sulaym jël ak xox naan nii ñu xool ñàkk bi di sotti fee di xool di sotti fee yéen bi tiit na lu kii muy def ci mu ne ko gis nga sa ñàkk wi wallahi mbooleen cuuraay arab yi defar cuuraay loo ko mbooleen moo cay dàq mu ne loolu la koy doy ummu sulaym mooy yaay Anas ibn Malik nekkoon surga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi waxoon naa dañoo ornaaloon yonent bi ba la yuhaddiquuna nadara ilayhi jàkkaarloo moom fixé ko rek dañ ko soxla soo xam ngeen ne Amr ibn al-As bi muy faatu doom bi Abdallah dañ ko melal nu yonente bi mu ne wallahi ma astati'u an asifa nabi li anni kuntu astahi minhu hatta la anzura mënuma melal karkaaram yonente bi noonu mel ndax dama ko wusoo ko dama ko xool melokaan yi boo ko toppoon ci kaw ba ci suuf dama la doon misaal loolu rek muy bopp bi doon taxuma woon a jóg waaye melokaan kéemtaane ngay gis soo demee ci hadith Ummu Ma'bad nga xam ne moom yonent bi gàddaay Abu Bakar nga xam ne borom xam-xam yokk achamail ci nan la yonent bi meloon sallallahu alayhi wa sallam dañuy nekk la xadis Ummu Ma'bad ci wàllu melal ci mën a leeral ak fasaaxa làkku arab bu set xadis Ummu Ma'bad benn la ci. mais jël na ci bàcc lu ba rek wax ñu ñaaw la doon wax xam ne arab yi yàlla nit moom yàlla daf leen koy am loo wax ndax xam nga ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jox nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg dëgg yàlla yónni na ko wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikma yëpp bokk ci yi nga xam ne moom la ko saxaaba yi yéen tamit jàmbale ji woote xam ngeen comme ñu ngi ko xamee ci Makka ca Madina gàddaay bi xoolal coono yi mu def moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Makka dem Madina xoolal lan lañ Makka balaa muy génn tooñ nañ sànni ci yoonam ay jekk tuur ko ay neefare gi dem fekk mu ngi sujuut ba doomam Fatima moo ko dindi gàddaay ko amal ba ko ñetti at yoo xamante ni doon jaay duñ la jaay dooloo suñu kenn du ñu war sa teer doon may jabar duñ la may jabar duñ la yenn doon yenn foo jaar duñ ko jaar demal ni dem amal boobu il tàmbali saxaaba yi ko muñ dellu ca ifaaba fi tamidi saxaaba nga xam ne xaaral na xajal moom taalib am na ay saxaaba yu bari yoo xam ne doo xam illa ismahu seen tur kese ndax dañoo teel a paas ci jamono ju metti ñaam bu dee jihaad ñii ñoo doon jihaad ñii ñoo soxla pour yéen saa soxla ñii ñoo doon tuur seen deret yi ngir garab gii mel ni tey tey bu benn waay toogee ci fa tayam nga fëggale ko baaxam mu gis di wax ay wax yu rëy war nga kaa gërëmee saxaaba yi ginnaaw boo ko gërëmee yéen saa soxla sa borom war nga ko gërëmee saxaaba yi bu saxaaba yi bàyyiwul woon seen deret yi di tuur yow doo toog ci fa tey tey ñoo demoon Talla ñoo dem Waxal ñoo dem Xandar ñoo dem Axdar ñoo dem Murayja ah ba ñoo dem Xunayn ay coono yu metti leen nag ñu nekk ci ay coono loo xam ni ah kii nga na ay nit ay góor ak ay jigéen yoo xam ne yàlla la moo leen gënal luñ mën ci am kullu masaa'ibi moo nekk musiba yi am ci àddina oyof na ci ñoom su fekkee yéen suñu bokku ci xoolal jigéen joo xam ne sa nijaay dee na mu ne waxuma laajuma loolu sa jëkkër dee na mu ne laajuma loolu ak sa doom ni ma laajuma loolu yeneen bi laay laaj ndax dara na lu ko ñu ne ko jëlee mu ne gëmut loolu bi mu xoolee ba gis yéen dina ko kullu masaibi te huunu ba'daka ya rasulullah lu ma dal ci musiba bu fekkee yow bokkoo ci loolu oyof na ci man subhanallah lii mooy bëgg loolu mooy doo gëm yàlla te loolu ñun nan nan ci def suñu bopp doo gëm yàlla lu dul yonent bi moo la gënal sa bopp sa baay sa doom sa lépp ku ñu téye di ko dóor wallahi wallahi la dina dóor ba sa yaram di xottee demal ci siira nga xool ak xabaar yi ne arab ñoom ak ñen dañ leen wax li ca la ñu xottee ndax bëgg nga yonent bi ñëw remplacé la mu ni wallahi bëgguma yonent bi fi mu nekk ab léeg di ko jàpp Abu Bakr Siddiq qul wa yawma al-qiyamah thani ithnayn mooy yàlla tudd ci alquran thani ithnayn id huma fi ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yonent bi ni waaj dañuy génn dem Madina ma ndeysaan aw ba kat jënd ci jënd ci lépp préparé fajal bëccëg digg bëccëg dara kaw ñoo noor naa ñu tàng jël yéen suñu bëgg bu leen dugg kër aw bakar aw bakar gis ko rek xam ni kii jóg jaam yéen bi ni ko nga xale yi jógee fii ñu waxtaan mu ne ko xale yi jëlul ñu jógee fii xale yi say xale lañ kër gi du kër buy seet na wallahi kër aw bakar du kër buy seet na yéen ci boppam xabaar aw bakar constant daw lëngaamu ko ne ko ab soxbatu idan ya rasulallah mbokk yi xoolal kuy jin abu bakar dëgg moo la gën a xam ni bakkanam xet na diggante Makka ak Madina waaye yéen bi jaral na ko aw bakar day daw ba ca kanam dikk dawaat fii dikkaat dawaat fii dikkaat yéen ñu ko ki mi def ni mu ni ko saa ma demee ci sa kanam rek sama xel dana mbaa kenn dëkk ci ginnaaw ma ne la jiitu ma dem ca gannaaw ma dawa musiba buy ñëw fa in qutiltu fa ana abu bakrin wa in qutilta fa anta rasulu rabbil alamin buñ ma faatee man Abubakar simple la nit simple la jëriñ ma daaw bi tus waaw Abubakar bu la daaw bi gisul pour jël wa yowma ridda keroog ridda ak keroog mexetul Quran ahlu siyar nee na dañuy dañuy wax ni l'islam yàlla dëgëral na ko ñaari nit ñoo xamante ni yaakaar suñ ni ba at day tuuti gën a am Abubakar keroog keroog ridda imam Ahmad keroog mexetul Quran Abubakar ànd ak yonent bi ci xunt bi xunt bu sàll lu ne def yonent bi Abubakar ni ko baal ma dikkal mbokk yi wallahi saxaaba yi dañ leen jiitu yonent bi ci lépp loo xam ne ay musiba la kon ngeen amul du jaana keroog mu fi ne ay fekk jëm ci yonent bi dafa daw projet song yonent bi pour fekk dal ci digg ginnaaw ndax xam nga teg ak ni muy mel waxuma la ak ak raafu de waxuma la puso waaw xam nga teg xool teg ni mu rëyee nga xam ne teg la ni muy tew tew tew moo gën a di ci sama baaram bi ma tàll mu mën a fekk ci sa kaw mu wóor la mën naa dal fu ne mën ngaa ñàkk lu ne waaye yonent bi jaral na la ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw ba dugg su mu yéree mu bëm ak kaalaam di ko taal ndax dafa am ay pax muy saañ di saañ di saañ ba mu des benn pax xoolal yàlla moo kéem taale ba mu des benn pax kaala gi jeex Abubakar jël ab oomam saañ ko ci pax ma Abubakar mu la gën a xam ni pax yi pax yi jàmm ndax pax yi nekk ci biir kër yi waaye mu génn baax ba pare waaw allahu akbar Abubakar daa sonn yonent bi daa sonn ndax ku nekk nit ñi dañoo ànd waaye yonent bi la tudd ci lupp Abubakar bi nelaw pour Abubakar toog di gàdde ne tuur jaam daal di màtt Abubakar ci óob bi subhanallah dañu amoon ordre yàlla bëgg yonent bi ba bëgg ñu ko yee ci ay nelaw Abubakar noonu naa yee yonent bi ni ko mottal ma waaye déedéet Abubakar bëgg la yàq nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii la sax di bokk mooy ñun naka nga bëgg gi ñu bëgg yonent sax est-ce que gis Abubakar di jooy mag mu doy di Abubakar di jooy ndax dangalu jàng dafa metti rangool bi ñu pat ñu pat ci dënnu yonent sa borom yonent bi yow ni ko lan la mu xam ne ko ni ko jàng ak commerce yonent bi daal koy toon sax sallallahu alayhi wa sallam loolu bi ñu àndee ñoom ñaar xool yonent bi ni mu ooyatee saxaaba yéen da doon xool kan mooy yonent bi kan mooy aw ndax xamuñu leen a xàmmee ndax ooyat bu mu ooyat sallallahu alayhi wa sallam xoolal saxaaba yi kenn kenn ku ne xëccoo maa lay àggale sama kër ndax dafa neex yéen tamit bàyyi leen gileem gi gileem gi dem ba àgg ca kër Abu Ayyub tombé nekk ci kër Abu Ayyub quand même ay nijaay leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fa la aada bi ci wax bi bokk Abu Ayyub al Ansaari yor kër goo xam ne nii la mel tabax ci kaw tabax ci suuf Abu Ayyub Umu Ayyub ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéegal ci kaw ñu ne ci suuf yonent bi ni ko déedéet yaay borom kër gi yéegal ci kaw wax nga topp suuf yonent bi am amoo ñu ne ko déedéet gis nga de mu ni ko yow yonent yonent bi ni ko man damay bari ay gan ne gan yi di yéegal ko wàcc day amu ay wala ko ñi nga bëgg yonent bi def ko toogal toogal ci kaw ka dem ci suuf yonent bi ni ko déedéet ndax moom itam mais loolu ni suñu gaa yi xuusewul woon koo xam ne boo leen ko jëlal ba muy nag wala soxla déedéet sallallahu alayhi wa sallam li ëppoon boo koy jox teraanga day gàttal laajte Abubakar moom ne ko gileem yaa ngi mu ne ko astamanu idan da nga ma koy jaay bañ di kéema dinañ gars yi di jàng jàng ñoo ko moom jëlal mu ne astamanu idan da nga koy jënd ku amul fulla la gis nga daaw boo bëggee am fulla ëllëg kenn ku la baare fexeel bul séentu ay may bul ko yaakaar yi la gars yi jot ay borom solo di ay poos yi ginnaaw enveloppe yi ginnaaw bul ko nangu di jël de ndax ku la amali bëgg fa mu bëgg ngay jaar bu yent bi jëloon jàkk ne def ko ci suufal jàmbur ñu def ko daaw bi commencé yëngatu jàmbur gis ni daaw bi arrangé wu ko mu ni ko jox ma sax teere looy wax moo tax yent bi ne leen déet bàyyi ñu jënd ko ñu wax wax wax muy déet bàyyi ñu jënd ko gis nga yéen sa salam ku ñoroon xomb la bañ ma tamit ndax yàlla moo ko yónni sallallahu alayhi wa sallam abu ayib yonent bi parce que xool saxaaba yi mu bëggee yonent bi guddi googu abu ayib mooy nekk mu ni nelawul moom soxnaam nelawul moom soxnaam lu tax léegi yonent baa ngi tëdd ci suuf moom mi ngi ci kaw moom problème mooy bu ma tëdd tiim yonent bi deuxièmement bi même bu ñu tëdd fan la ñuy tëdd dañuy laal fii sunu mat laa fekk sunu mat laa di ngi tiim koo xam ne yàlla day jox koo moom ah déedéet du ko def day tëdd day toog ba mu yàgg mais est ce que fi ñu toog sax du foofu la yonent bi nekk kan ngeen toog fee ba mu yàgg mooy est ce que fii la yonent bi nekk ba mu yàgg nag ñu la ñax ndaara ndaara xoj ndox mi tuur yonent bi yabal ko xaw mu xool ko xam ni ñaar ñi nelaw yonent bi doog a wàcc ci yéen ca kaw laa yóbbu ci suuf loolu benn abu ayyuba moo ñëw ci benn saxaaba fekk bu saxaaba yi baax nañ xoolal nañ bokki woon sunna yoon sax la allah su fekkee ni ñu jumma ci xisa bi Abdoulaye ibn Omar mu fekk ci kër gi xam ngeen yéen si day kere yi ñuy def ñun jënd réseau boo xam ne réseau néeg bi yëpp xam ngeen su ñu leen dégloo yéen jàll ngeen dañ ñuy tere ñun ñuy wodd mbir yi defal palaasu bi la palaasu fenêtre ak palaasu bon bi abu ayyuba al ansari te jamono jii rek saxaaba yi dañoo soxla gis leen ndax ay benn benn ñoo ci def mu am téere wax ko Abu Ayyub mu ñëw Abu Ayyub ñëw muy dugg ci néeg bi téere ñu rin mu ni wallahi du ma toog du ma lekk seen lekk du ma naan seen naan lu dul seen lii da ngeen koo dindi wala dugg mbokk yi lii mooy bëgg yéen bu sant la soo delloo ci Adama dana ko Cheikh Albani mu koy firi li may wax kon ñun ñii leen meloon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen kay niroo Urwa ibn Mas'ud keroog ba muy wax yéen sax nan la wax nga ni gars yi kii daal ngeen bàyyi musuma dem ci aw nit boo xam ni ormal nañ seen jaar ci ba mel ni gaa yi ñu ormal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni aw nit lañ woo xam ni bu yonent bi wax ñu ngi leen teg picc mën naa naaw wala ci seen kaw bopp ngir dañuy jàpp ni ah kii wax mooy yonent bi mbokk yi est-ce que ñun am nañ loolu ci wax orma yonent sax la est-ce que orma jooju am nañ ko ci waxam est-ce que yow mu ne lii yonent bi moo ko jàngale yow fan la lay toll ci xol duñu siggi xool ko sallallahu alayhi wa sallam duñu wax ak baax ca kaw waxu na ne Thabit ibn Qays ibn Shammam Thabit ibn Qays ibn Shammam nga xam ne bi laay jot wàcc na la dinañ naan lu ñu war a dina ak sërum la yaqilu ñi lay woo ci ginnaaw néeg yi amuñu xel ndeysaan Thabit mu ni man la ndax man maa ngi laa gis ngeen xisa boobu xam ngeen bi yàgg naa ko fekk ci lii ba yonent bi ni ko neel ko nañëw moom min ahlil janna saabit ibn xarit ibn samma yonent bi ni ko anta min ahlil janna xoolal ñoom bu aayee ñoo dañ naan maana waaye bu aay tey ñun lu ñuy def jiwa jiwa jiwa lépp lu bon daal jiwa lu baax yow loolu baaxul loolu sa baaxul dem fenn xoolal fi mujjee saabit ibn xarit ibn samma ah keroog dañuy xëy mu sëriñ ma tur kër daal pour bañ a daw dafa jël buum yeew ci tànkam yeew ci garab gi ne du ma daw fi laa def yéene shahaad ndax yéen boo ko daw da ngay shahid kooku la ñuy wax ni mooy koo xam ne dafa dee ba pare di dénkaan daa dee ba pare di ndax bi mu dee benn waay ci yéefar yi benn waay ci jullit ñi benn waay ci jullit ñi amaan na ca naata xëy la wax wallahu aalam fekk mbub mu kéem saane moo xamante ni saa saa na xëy si sama da ko solo nekk da koo rocc daal di koy yóbbu bi mu ko roccee yóbbu benn xaytu saabit ibn Qays ibn Shammaam tës ba guddi gis saabit ci nelaw saabit mu ne ko sama mbubb bi ma faatoo barab sàngam jiw moom sumi moo ko sol demal nga wax ko amirul mu'minin bu ko wax gént la ndax boo ko waxee gént la amal mu fekk xuraafaat waaye wax ko nekk buñ ko enquête dinañ ko gis ñu enquête ñu gis ni waaye jël comme la borom xam-xam yi wax ni mooy ku faatu ba noppi di joxe ay dénkaane yu ñu mën a jëfandikoo gis sa njëriñ ku nekk la ko xaar ñii yow ñu sell ña ñii ñoo ñu baax haulaay hum alladina qaddaru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaq qadri saxaaba yi du ñu am bis bu leen gën a neex bis bi yonent bi dugg Madina du ñu am bis bu leen gën a tiis bis bi yonent bi baax sallallahu alayhi wa sallam bis boo xam ne daa faral di jëloo Ali ibn Abi Talib luuloo Asmaan dofloo Omar ah Abubakar lawla an sabbatahu Allah dana bokk sa gaay la boo xam ni saxaaba yi dañoo sànni ci ñun dëkk bi sax dañuy dëkk dañoo suul yonent bi ba noppi arrêté na dañoo suul yonent bi tàmbali sànni ay gàtt gàtt suñu biir xaw xam nga lu comme ni mu dugg si Madina Madina du doon Yasrib waaye yonent bi ñëw Madina mel ni sax ay courant daal dugg ci dëkk bi wala ay projecteur ñu ne al madinatul munawwara dëkk bi ñu leeral bi wuri na ci sallallahu alayhi ndax li ñuy màggal yonent bi mooy bu ñu waxee yonent sallam nga fekk suuf bu dul woon yonent bi yàlla du sàkk kenn loolu ay wax loolu war a sàkk nag yonent bi taxul yàlla sàkk kenn wala yu qadiru la ñu xaq qadri lakin nag laa naxlu ñu ëppal de bu dul woon nag yonent bi yàlla du sàkk kenn loolu kenn ko wax yàlla sàkkul kenn ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku màgg la ku rëy la fi ñun amul lu ko gën a rëy lu ko suñu borom waaye nag taxul yàlla sàkk kenn déedéet xalisab jaabe bi ñuy wax ci tool jaabe naan awal ma xalaqa allahu min nabiyyin loolu ëmb li yàlla njëkk bi di mooy xalima loolu mooy wér ci sunna waaye yàlla njëkk la sàkk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dañuy bàyyi ba benn nit ñu dañuy màggal yonent bi ci anam bii ma tàmbalee woon sax et ci anam sax xali nga daw ay xeet dem ci ak ruumu salaat al mufaddala ndax ñi nga xam tey ñooy wane bëgg yonent bi est ce que day leen sacrifié wu seen nopp yi dal seen bakkan yi seen lépp ngir yonent bi donc ñu mooy déedéet ña ko doon def nag yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi faatu ndax dañ daan am soxla ñu ci affaire bi jàkkaarloo di ko ñaan déedéet déedéet loolu amut Abubakar Siddiq Fatima joteeg moom ngir Fatima daa jàpp dañu war a doon yonent bi te Abubakar yonent bi waxoon ak ab yonent kenn du ko doon coow seen diggante ba am ay juróom benn weer jàmm doon tey am bu yonent bi amoon lu muy génn di ko réglé bii la Abu Bakar bu Amar jot ndax kii ni ko jëy si Usaama day dem kii ni ko jëy si Usaama demul jàppante am jàmm bu yent bi doon génn day génn Ali ak Aïcha seen diggante ñagas ba xeex am ci mawqiatu Siffin ay junni mawqiatu Jamal ay junni yent bi su xool ay saxaabaam di dee dama ne bu amoon kuy génn wax kooku day génn wax mbaa mu feeñ ci génn dañoo bëgg a baaw naan saxaaba yi dañu dem ci Anas ni ko bi bi yonent bi nekkee moom lañ daan wax ñaanal yonent bi ñëw fi kenn dem ci bàmmeelam dañ naan la ñaanal yow Anas dana yàlla bàkkaar musiba du wàcc lu dul bàkkaar a am musiba du def lu dul bàkkaar yi lañ tuub nit ñaa ngi ñuy gis nga leen nag yaakaar nañ am ci man ndax nee na ñooy maay bàyyi yonent bi maa ngi am yaakaar ci yow yàlla yàlla nañ lu tawal taw bi doo ko taw te amara na boobu pour mu jàng dañuy góob góor mbir yi supp kànne ko jaxasi lépp jàpp ne mbir fekk amut li am mooy lii yéen ñu faatu la aw bëgg a jël xilaafa gi ñaari argument ci tuuti wa amal jël xilaafa gi fukki atal nangam Ali kadalika Usman kadalika ba keroog bi ñuy faat Ali ñu Abi Talib ba ak fa yéen ci gàddaay mu ñeent fukki at képp ku la wax ni saxaaba yi daa lañ daje naan dañuy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy nangal nañ ko wax na lu amut wallahi wax na lu amut taarix sax la doon kàddu bi yaa ngi xam nga dafa am loo xamante ni wax ko yomb na waaye défendre ko tamit day gën a yomb kàddu bi téer yaa ngi fi kàddu bi sunan yaa ngi fi masaa yi jéeg ma aajimi ñi ngi fi amul kenn ku la mën a wax loolu ci jamono yi Muawiya ibn Sufyaan doomu Yazid ibn Abi Sufyaan Yazid ibn Muawiya nga continué ko ci ñoom Marwaan ñoom ñëpp ah amul ca kenn koo xam ne daan nga màggal guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee nag saxaaba yi faat góor yàlla yi nga xam ne ku amoon loo ragal ñoom ngay tiit saa bi am ñooy faat boo tóori tàmbalee bari ah ci ay seeti yu bari ci ginnaaw ba ci ak dawla Fatimiyya xam ne ay état yu bari am nañ ci dawla Osmani yi dawla Abbas yi dawla Amawi yi moo ci jiitu dawla Amawi dawla Amawi moo jiitu ginnaaw xilaafa Rashida dawla Abbas yi topp ca ah dawla Osmani yi topp ca ay xilaafa yu baree bari ba ak dawal Muwahhidun ak dawal Muwahhidun boo koy jàng siira daf lay wax ne ñetti nekkoon ñoo soxal l'islam ba dugal ko nit ñi wax dañu war a xam ni ni ñu def nit ñi ni ñu def ba jàng ni la ñeneen ñi def ba jàng xam-xam ne léegi nag li ñu gën a neex bu nit ñi li ñu wax bu ñu ko amal ay lay waaye yéen itam moo jox lu mëri ma mu wax loo garab ga moo nangam nangam yooyu def saaba yi sax daw ko xam ngeen wax nañ ko xam xool léegi dara nekk bi ci jàkka ne muy wax yéen itamit nangam nangam rek mu dóoral xam nga ndox mu koy dóor su ma ne bàyyi fii ngeen nekk bàyyi jàngal ma dégg nekk ni kaw ci biir bi rek sallallahu alayhi kon gis na kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ko bëgg te xam ko mooy koo xam ne ak dundam yëpp daf koy def ci ci sunna sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki bëgg yonent bi mooy ki xam nangam ju ne bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko war a defee léegi tey da ngay dégg yenn ci mbokk yi ñoom nangam jigéen boo ko waxee nangam waaw bu ñu ko waxul bu koy wax mbir yi ñi ne ko nga bàyyee da nga dégg ko ah jigéen lañ mooy nangam nag déedéet amul ko ni mooy tuuti parce que mbir yi bu ko koy wax la ñu xamal ba su wax yàlla moo gàddu na ci loosu ñi xam ni la su bay ñu nun na bu li naan wala tattumuna mbir yi leeral leen ko nit ñi bu leen ko nëbb fa nabru wala abduhuri yi bi yàlla ay alal ña muy alal mooy ña ko tegal seen digg ginnaaw ñi xam bu ko leeral bu koy leeral innocent yi dañ ko xam ba di ko leeral li am mooy lii lii am tey dama ñu amut woon la amoon mooy saxaaba ya ñoo xamoon ne yonent bi la yàlla yónni woon màggal yonent bi mënul paase ci def ci na màggal yonent bi mënul paase ni def la di bàyyi lan doon tere te it nag fal yaxdar alladina yuxaarifuna an amri yàlla mu ni maa ngi leen di lancé benn message message boo xam ni ay dëkku la ki nga xam ne juulam jàngale yonent bi na mooy tuddiku na mooy tuddiku mooy li may wax ci xutba yi àjjuma jee paase da nga gis yu bare bare bare bare yoo xamante ni tey nit ñi dañ koy santee kenn ku dul yàlla ba ci def maa ngi déglu rajo koobaa boo xamante ni dañ ci doxu ko fan ñëw ba yegg wallahi rabbil alamin bi dégg ñu ñu ngi koy tantee diw kenn du ci yàlla ñu ngi koy tantee diw yàlla ku am fulla la ku am faay la ci suba sa même heure bi dégluwaat journal nga dégg ñu ne ko nga naan tamit nit deel yàlla dañ tam lépp ñu nekk ci ne dañ tam ci yàlla am na moo xamante ni diw faatu su tax yàlla lekk ko foofu am laa yamliku darran wala nafan wala yaalamu ayyaana yubaasu inna alladina tad'una min duni llah yàlla moom ñi ngeen di jaamu wala yàlla lañuy yàq lu ko zubaaban li gën a sibu di weñ sax muy ñu ko liñ waaye yàq lu ko zubaab bu weññee karax seen bakkan laa yastanqidu minhu mënuñ caa xëccali seen bopp laa yamlikuna darran wala naf'an wala yamlikuna mawtan wala hayatan wala nushura amuñu mënuñu yoral seen bopp dee nga xam ngeen ni kat yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana ku sañoon dund lu gudd ku sañoon dund lu gudd yàlla moo ko def yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana ku nekk da ngaa bëgg am junni at waaye borom bi subhanahu wa taala moom aadam mooy léeg-léeg day bàyyi mbir rek muy yéeg rek li nga gis bu koy tënk waxoon naa ne lu gën a sori kaw ak jëmbal day gën a métti ku la gën a sori kaw buy daal moom la jëlal di gën a métti yàlla mën naa bàyyi ngay gën a sori kaw li am mooy yonent bi wax yi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko mooy di jëfi sunnaam ndax yaa ngi jëf sunnaam yéen sa sa biir kër lépp lu yonent doon tere ay esthétique ay nataal mi ngi sa biir kër yéen yàlla bi nee na xaj malaaka du dugg kër gi malaaka yërmande du dugg kër gu mu am yaa ngi sa biir kër yéen yàlla bi nee na asmaa jigéen bu tolloo di gis baax yaram du fee lu dul kanam ak loxo say jigéen ak say jigéen yi moroom suñuy jigéen ñooy sol lu bon di génn ci benn nga ne yaa ngi màggal yéen sax yow ci lan ngay màggal yéen tamit dañuy laaj ci lan ngay màggal yéen ci sax même bu fekkee dañ koy màggal ci la koy màggal ci lan nga koy màggal mooy li may wax ak yow ndax dañ fay jàngale yéen sax nan doon jàngale déedéet li am mooy yéen ci sax li mu aajowoon suñu dund ëpp na benn temps nu qaddiru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaqa qadri amul ngi ñu ko jaaree ku gën a gaaw jëfi sunna moo tax dinaa yor mbokk yi am na yu bëri tey bu mënoon di ko ay tànkam jaaxaan jàkkaarloo asamaan saxaaba yaa ko fekkee wut saxaaba yi ñoo faam am na yoo xam ne tey bu mënoon di ko ay tànkam am doole saxaaba yaa ko fekkee wut waaye nag yàlla ko am fulla la nag aadatuhu fi nafsi astaari min taqsir maalum ñi nga xam ne dañuy jéem a laqatu laqatu lu ci yoon sant la te fekk am na yeneen mbir yu laqatu ci ginnaaw yu ñu xamut yàlla moom subhanahu wa taala xam na ne dina jëfandikoo li moo tax mbokk yi màggalee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu gën a rëy na ko saxaaba yi doon màggalee na ko Abubakar doon màggalee na ko Omar doon màggalee amul ci dundu saxaaba yi wala taabi'uun ku ko waxoon ba lu amut ak bés buñ doon daje màggal dundu yonent sallallahu alayhi wa sallam déedéet amut amul buñ doon daje naan dañuy daje wax déedéet bal saxaaba yi kay dañ daan def mooy dajaloo comme ni Omar ibn Khattab doon wax. woo benn waaye ni ko taala bu ñëw ñu ne ko zakkirnaa rabbana fàttali nu yàlla fàttali nu yàlla bu ko waxee alquran lañ doon jàng lii moo doon am ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo doon am ci jamono saxaaba yi yonente bi saxaaba yi dañ naan ko tey ñoo def naan parce que ñoom diwul koy def xool Amar ibn Xattab ci yërmande bi sallallahu alayhi wa sallam xool yonente comme yàgg am ko ñu di tuuru ndax xam nga Amar ci bokkalaayam ci digraay nga ragal yàlla nga ngëm nga góowee nga ak njàmbaate nga kii caaxaan tuuru ay rëkkul mu tiim yonent bi jooy sallallahu alayhi wa sallam lan lay jooy wax nga gis yonent bi tëdd ci bakkan bi ba jóg gis loxo bi maaj xam nga tëdd ci bakkan day maaj gis sa loxo bi yéen ci Omar ni xool ko Kisra ñu bonee ak nguuram gi wax a wax a wax ay wax ba àggal tey laa la la nangam day saam yonent bi ca mën a jàngale ko maa ngi wala dunya Omar man yonent bi la ma desee àddina maa ngi wala dunya sama desee àddina dara إنما أنا كمثل راكب إذ تظل على شجرة فراح وساقها man da ko doon tuuti àddina li ma fi def mooy damaa ñëw ba jëloon garab gi soxla escale tëdd tuuti jugaat dem ko defee àddina allahu akbar wa kadalika Abu Bakr ni jëlee naa la ko sànq saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ñuy góor ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na am si bu ñuy nit ñi wax ne bi yonent bi faatu day ñaan yàlla seen wax na amul lu muy aajoo xool bëgg na si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaaba boo xam ne day day ñëw ba ci fekk xalqam yonent bi xool yonent bi def yonent bi woo ko lu xew mu ni moom su xëyee suba ba ngoon te gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan day lu ko métti moo tax mbokk yi gis nga bëgg yonent bi wallahi dafa toppoon saxaaba yi dañ faatuwaale maa xam ñu ne bilal ibn Rabah moo nekkoon noggukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi faat bilal ibn Rabah ni day arrêté noonu comme jaamu yàlla bu toll noonu defal na ko yonent bi ba yàlla jëlee ko fi day dégg yeneen jaamu yàlla dafa bëgg dafa bëgg bari affaire bi aw bakar ni ko déedéet yow gisuñu kuy nodd ku dul yow di jàkka ci bilaa ni ko bu fekkee dañ maa jëndoon ba may jënd pour exploiter dinaa toog nga xam ne kon yàlla tax mu jënd ma ko su fekkee ba ngay jënd yàlla taxul nga jënd ma bàyyi ma sama suwaay bopp ma dem ca front ba fa ñuy géeree ma géer sama dégg aw ba nga xalaat xam ni kii yàlla taxul mu jënd ko mu ne ko kon nag demal bi laa def ma tey saam am fay at benn bis ci bis yi rek xoolal ko mën na saxaaba yi gën a yonent bi yeggoon Bilaal nee na dafa nangu Madina mu ñëw di gane si waa Madina allahu akbar bi mu ñëwee Madina xale yi nga xam ne nii mu jëlee juddu doon dégg Bilaal Bilaal Bilaal xale yi daw saw xam ne xamuñu ko fekkee wuñ ko ñoom kon ay xamuñ kuy Bilaal ndax boobu la ñoom yéex a dugg tisbaar jot saxaaba yi mel ni dañ ko ñun ñëpp sàkku ci Bilaal mu nodd gis nga keroog nodd boobu yeggut Bilaal la ko dal bi Bilaal commencé noonu dafa mel ni dañ laa delloo si wala sa dëjëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Amar ibn Xattaab nag ñu nekkoon amirul muminin moo ci ëppale lu mu doon jot ñaari yoon benn bu ci nekk muy jéem a noonu dafa noonu ba ci digg mu dàgg ko lu tax suy noonu nit ñaa ngi jooyaloo jooy yu nekk yoo xam ne parce que tey dañuy maanaam lan moo tax ñuy jooy kenn ku dégg noonu gi rek sa xel da lay fàttaliwaat yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom Aïcha soxna yonent bi am na yenn xeeti laaj yoo xam ne boo leen ko laajee dañuy gêné wu parce que boo leen ko laajee rek fàttali nga leen sax bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul weesu jaare ko ci sunna bëgg ay njàngaleem bañ ñu mu tere bañ ñu nekk ca la mu tere gis nga am sunna jamaa dafa bokk ci ñu tawaare ak li ñuy am am yërmande ñi nga xam ne dañuy duuyoo njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg leen bëgg déet wallahi gis leen ay imam yu mag bu ñuy tarjama seen dund dañ leen kaana shadidan ala ahli lbida ku taral loola ci ñun bida parce que dañoo bañoon bida parce que xam nañ ne bida fu mu jonkal leen sax ay nen yu bari fay doon tey nag li gën a métti ci xol mooy bida jonkal am fay nen tostan fa rey na fa diine sunu doogal kon mbokk yi nañ dégluwaat baax balaa yéen ñuy baax balaa soo ay am bàyyi naa ci ñaari million ñu ko moyee du ngeen sàmm ba faaw xool lu mu wax kitaab allah wa sunnati téere yàlla bi sama sunna mbokk yi mbir mi dafa am ci naan yàlla dafa fi nekk mooy ci alquran sunna yéen bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi nag fa atamu rasulullah wallahi atamu rasulullah loo fi gis mu di mbaax law kaana xayran la sabaquuna ilayhi saxaaba yi lañ ci jiitu dañu gën a xiir ci yiw de xiir ci yiw mënta paase dem ba xëy naan yàlla waxal loo gën a bëgg ñu defal la ko yasalunaka maza yunfiqun yàlla waxal loo gën a bëgg yàlla mu ne qul al-afw soo jëlee li nga soxla def def ku dem ba naan yàlla waxal li nga gën a bëgg ñu defal la ko kooku ba la doon mën a yem léegi mat na de lu yàlla yi dencal kenn ak ku mu mën a doon loo baax baax ñaar mën a am bu ma waxtaanee yow nga ne ma koo kaa gën a baax kaw ma dafa amatuma lu may wax ak yow damay nekk ci dem sama yoon ndax yow jëloo wax aw ma gën a gën a baax naka la te yàlla jëlee aw ma gën kenn di ko ko jox déedéet dama ni yéen yàlla bi jàngal na li muy jàngale mbir yi leer na bàyyi na sunnaam leer na ne ne lépp mat na yéen yàlla bi nee na amul lenn luy jegeloo nit ñi yàlla déglu xarit bu baax di leen soriloo safara lu leer na luy jegeloo yàlla di sori safara lu dul leeral na waxal la baax la waxal rek alima bu nabi aw lam yàlla xamoon na ko wala déet xamul nga ne xamu ko ñu ne la ko yàgg na xam yonent nga ne xamoon na ko ñu ne jëfee na ko wala jëfewu ko nga ne jëfewu ko ñu ne naka ngay jëfee abala wati akama wati aku da ngaa mën a yem te lan yemoon yow kon la ko xëy na sama kunaa bi lay keroog mi pape sallallahu alayhi wa sallam leeral yëpp amul lenn lu mën a gis ci bisu altine ci weer bi mu juddoo woon sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw feebar bu métti bopp buy métti allahu akbar ak li muy baax baax saxaaba yi ma ne ko sonn nga lool mu ne waaw inni uuxatu la uuxatu wa aka rajulayni minkum ni ñaari sukuraate man noonu laay sukuraate ndax xam ngeen ni ab yonent kenn dara li muy am ci ay coono da koy gën a yokkal ay garaata te du ba xaaji guddi sallallahu alayhi wa sallam mu woo ak saxaaba ñu abu muwayib bi nekk daal gën a argal xaaji guddi deux heures du matin trois heures abaa muwayib ko gunge ko yéen a ngi dem bokk na ca la doon wax yéen waa armée yi maa ngi leen di ndokkee ci ngeen nekk ndax yéen yéen a ngi ci jàmm fitna yaa ngi dankale ko suñu kaw mel ni jóge di guddi gu la dem kenn day xëy nekk di leen balaa ngor mu nekk yéen ñun day ñoo ngi ñëw keroog bi muy ñibbi ci ba ci yoon bi ci la ko moom si daanaka mu am ay fan bopp bi di metti ñuy tooyal ay morso di ko ko takkal ci nabi sallallahu alayhi wa sallam gis nga jigéen bi jël indi mu tay jël morso wërale ko ginnaaw bi mu ko tooyee ni muy waxee noonu la morso yi waxee ci bopp yàlla sa sal la tàngoon te teew mi ngi muur sallallahu alayhi wa sallam di recevoir gan yi ndax jamono jooju mooy jamono ida jaa nasrullahi wal fath tey di jàngale tamit jot mu bëgg dem jiite jàkka ja mënta dem mu ñaan ba bëgg koo génn daa mu duggaat ñaanal ndox xëppoo waat génn daal mu ñaanal ndox xëppoo génn daal mu xam ni mënta dem ca la wax Abu Bakar ca la wax gaa yi leen wax leen Abu Bakar la jiite saxaaba yi ko déedéet Abu Bakar du jiite Abu Bakar nga xam ni bu dee iyyaaka na'budu balaa nga balaa nga xam lu cay topp sama ngay jot te Abu Bakar noonu la meloon sallallahu alayhi wa wax naa la jooy Abu Bakar ci Quran tuur loolu ay boromi kër yu bari gaa yi nañ jël Omar yéen ci bi ni yéen a gën a dëgër bopp dama ni na Abubakar jiite laa wax waaye waaye mbokk yi la am na bi tale waxoon Abubakar mi daloon yonent bi ci suñu julli mu jëm ca yàlla kon war na ñoo suñu biir àddina yi kon na jiite Abubakar doon jiite radiyallahu anhu wa ardaa kon fajar gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatoo ñëw na jàkk xam ngeen léegi Aïcha ak jàkk bi mu meloon nii yonent bi yëndu seen saxaaba yi ñu ngi tàppe aw ba kat ci arrière bu mu jiite yonent bi ni ko demal jiite yonent bi daal di muuñ saxaaba yi ñu ngi ci julli waaye yonent bi la ñuy xool sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di muuñ rek sax seen xel ñoom ñëpp daal ah ku feebaroon ba xëy di muuñ di génn kay mooy wér nga ndeke muuñu maa ngi leen di tàggu la woon am na ci saxaaba yi ñoo xam ne keroog dañu mujjee jiite yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ay yoor yoor comme ni ko borom xam-xam yi di waxee yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi faatu mbir yay xew xew ba Abubakar jub ñëw dani maa ngi leen di jiite waaye maa ngi leen di dénk ñun te loolu laa jeexalee mbokk yi nanu def la Abubakar waxoon mooy jiite Abubakar mooy jiite de wala sama xol bee yegg fa may bañ mu yegg fa nag ñu am na ñuy dëkkalee Abubakar allahu akbar wallahi xeetu xeetu lislam bi ñu da yow seen ngëm teg ko fee Omar ne la bul jëlee ngëm ak Abubakar mu wat ko ngëm ak Abubakar mu wat ko te Abubakar Omar moo ne mais Abubakar gën lay dóor Omar naan wallahi yaa laytani kuntu sha'ratan fi sadri Abi Bakr man dama doon ñaan yàlla yàlla ba ñoo naa def Omar mu def ko benn kawar ma sax gën Abubakar ne loolu moo ko gën a bu dajeeg yàlla kooku kon boo nekk yàlla Abubakar gën mu la Abubakar xam nga lu wax ati'uni man ata'tu Allah wa rasulahu yéen ma topp yéen maa ngi topp yàlla fa in ataytu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alayka su ma moyee yàlla rek topp topp leen yàlla ak sa bàyyi te xam ne man Abubakar mbokk yi est ce que ñi jiite ñëpp tey ñuy wax nii kon kenn ku jiite ku ne dañ leen a sangal la Abubakar mu ngi ñaan suñu borom bi ak mooy sifaat yi ñu la xeetu islam bi ñu nekk tey sooy bët yi Muhammad te ci Allah dañuy gis koo xam ne li mu nekk yàlla na ko ne yàlla rey mu wóor la ni yow lii bu tey ne dindi xaw yi parce que shirku billah wallahu la yaxfiru shirk mu ñaan yàlla yàlla ci yàlla kon li jaar mooy suñuy baay suñuy yaay suñuy njaboot ba ci ñun ñu ñaan yàlla mu delloo ci waat ci sunna yonente bi waradan jamila ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wan ñu dëgg ba ñu xam ko ñu topp ko wan ñu jaaxaan ba ñu xam ko ñu mooy dëgg mu ngi ñaan yàlla mu defal